aboneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo asalaam di jàmm aleykum jëm si ko lu koy nuyoo mbokk xarit samay am di jàmm nuyu nañ leen tey ñu ngi fii ci seen seen youtube bu mag bi di Elvision Média Elvision Média ñu war am suñu beneen numéro moo time moo time nag waxoon nañ leen saa su nekk danañ dalal ndaanaan tey ndaanaan la ci biir ndaanaan ñu dalal fi usmaan Gueye Barham Couture moom ñu dégg ko ci ñaw dégg ko ci lu ne amul lenn loo xamante ni bàyyi na ko ci ñaw kooku mooy Ousmane Gueye di suñu invité ñu am fi beneen invité boo nga xamante ni nii euh, mu ngi nekk complexe Aïssatou Sabara la génnee def na fa trois ans bon ci jàngam wane tamit euh, ci défiléem loo nga xamante ni lu mucc ayib la muy robe de mariage donc moom euh, Ndeye Sall la tudd nekk ay complexe Aïssatou Sabara ki Ousmane Gueye nekk Barxam Couture salaamaaleykum Ousmane Gueye nuyu nañ la. salaamaaleykum waa ñuŋesi yàlla bu baax a baax a baax doon ñaanal jàmm saa su ne avant damay nuyu sama waa àddina yi ba xam bu diir ci kaw ba si suuf ci jël bi di ko jiital sama papa bu ma demee ba xam ne li ma xam yëpp gannaaw yàlla moom di ngi sant ñëpp waa baraade beeg waa waa koñ samay client te samay client dañuy sant bu baax a baax sant ñu waa kër yi baax a baax a baax kooku mooy Ousmane Barham Poutir nekk Kër Massar di def lu doy waar. waaw di def lu doy waar Ousmane Gueye li nga sol dafa rafet. Euh, ñu ñëw ci Ndeye Sall Ndeye Sall nekk complexe Aïssatou Sabara jël fa premier Ndeye Sall moom tamit di def ci ñaw lu mucc ay Ndeye Sall nuyu nañ la. waaw mbokk yi yéen ñi seetaan. ñu ngi fi am tey ñaari invité ni ñu leen ko waxee woon ndaanaan ci biir ndaanaan Ousmane Gueye Barham Couture ak Ndeye complex ay satu Sabara moom def na fa trois ans moom Ousmane euh, ñu ñëw ci question yi ñu ñëw ci question yi Ousmane Gueye euh, ban année nga dugg ci métier tailleur. métier tailleur bu ma si laajee dama ci sawar trop sax parce que dafa nekk loo xam ne maa ko tax na bopp kenn tàggalu ma ko. te bu dee dama ci bëgg a réussir rek faaw ma jëm ko man maa ngi dugg si lu ma jëm te 2008 maa ngi jàng métier Gelwaar Couture laa jaare Gelwaar Gelwaar Couture Cité des Eaux enfance Brioche Dorée mhm. maa ngi jàngee foofu nga jàngee métier waaw mhm. Ousmane ñaata at nga jàngi métier nii métier bi def naa ci trois ans bu mu juumul ah. def nga ci trois ans trois ans trois ans nga def ci métier ni da nga kaa mokkal. waaw bokkal naa de am na lu si jot a nag xam nga métier moom du moo ko chaque ne xam na loo xam tax terewut tamit sama bi la ma yaree daanaka moo trois ans yooyu noonu yàgg na yàggul parce que dama ko bëggoon dama doon bu dee wàcc di teel xëy amul jour boo xam ne sama patron dina ma jëkk si kaw machine bi. Hmm. Ousmane Gueye ban heure nga daan xëy. ay doon xëy 7 heures 8 heures atelier la ma xëy. noo doon dundee ak say patron ci biir atelier bi. waaw samay patron bu rafet tamit mosuma ci am loo xam ne ñu ñu ngi ma koy xañ tamit ñu ma yéene woon métier bi la xam nga boo nekkee ci atelier tànk lu la war mooy oyof ci oyof boobu nag pour nga gis ku la bañ du yomb tey bu ma jàppee ne tey mag yow ñoo fi ñëwandoon yaa ngi liggéey liggéeyuma boo ma santé damay dem parce que loolu dama ko yàgg bëgg dama ko yàgg oyof daal foo mënti dem danga oyof danga oyof ni daal jarax ñu nga jàngal loolu dinañ la ko yéene tamit loo bëgg du la jafe wax dëgg yàlla sama métier amoo si benn coono boo xam ne dañ naa ko si métier la Euh, Ousmane kon ci métti coono lañuy la ñuy taxaw ak yow ñëwani ci Ndeye Sall wax ju neex njarum nopp la xel mu sell moo koy suukar taataan leen ñu xelel leen ñu ngi fii ci seen seen YouTube bu mag di El Vision Média El Vision Média euh, Ndeye Sall ñu gis ne yaa ngi woon ay Aïssatou Sabara complexe Aïssatou Sabara euh, ñoom ci lan la ñuy yëngu. waaw complexe Aïssatou Sabara ñoom si couture la ñuy yëngu ñaw góor ñaw jigéen. Ndeye Sall est-ce lépp la mëne. waaw am na ñaw dañ koy ñaw dañuy ñaw ñaw jigéen dañuy ñaw wala damay ñaw. damay ñaw dañuy ñëpp dañuy ñaw. ñëpp da di ñaw. te dangay ngay ñaw. Euh, Ndeye Sall tey boo doon xool daam lan moo ko war a jàpp ci ci ci sol ci sañse. daam bu solee costume day rafet bu solee abajom jour nekk masque nekk masque costume day rafet. Ndeye Sall lan nga dund ci centre boobu loo ci jànkonteel. waaw centre boobu mën naa ne jafe-jafe yi méttiwul comme ça commencement bi parce que booy ñëw doo mën sax pédal. Mhm. mu jàppale la bu baax a baax loolu kese la commencement bi daal moo métti parce doo xam mais moom dina la guider bu baax a baax. ñaata at nga def ci centre boobu Ndeye Sall. trois ans nga fa def. mu nekk nii pare nga. waaw lan nga am. diplôme d' état. diplôme boobu bi nga ko yoree loo ci njëkk a xalaat. waaw xalaat naa si genre ubbi atelier wala ma dem ba yow sama atelier boobu xalaat naa si lu bari daal liggéey man si teral lu bari di si def lu baax def si loo xam ne dinañ ma dee ku nekk incha allah. ndeysaan bi nga duggee ci centre bi euh, yan coono nga fa am. coono coono moom aw awuma ko ci parce que da nga ko da nga boo ñëwee centre ba da nga koy fekk ñoo xamante ni si ñu ouvert lañ ñoo xam ne dañu ubbi seen kanam pour mën wan la kon ñooñu bu ouvertee rek yow boo ñëwee pour nga xam dara day yomb. kon xanaa jàng léegi amatul coono moom. waa ak am na coono boo bu mais ak ak centre ay sabar moom gisuma fa coono boo ñuy wax. lan moo tax da ngeen a jàngul. ñu ngi kay ñu ngi jàng ñu ngi ngi jàng yéen ngi mën. li ngeen est ce que tari ba nit ba nit gisee suñu défilé bi xam ne tari nañ yow sa défilé lan nga présenté. robe de mariage ak costume nœud de papillon. costume bu am nœud de papillon. costume bi mo am nœud de papillon wala. chemise mo moo am nœud de papillon. chemise mo am nœud de papillon. Euh, tay lan ak lan nga composé pour mën ñaw robe de mariage ba mucc ay wa robe de mariage bi ñi ngi jël dentelle euh, ak organza ak. genre genre lii la. Chanel. Ah, ok euh, loolu nga composé pour mën a ñëw sa robe de mariage. jërëjëf Ndeye sàll dinañ ñëwaat ci yow. ñu ñëwaat ci Ousmane Gueye ci mettit ak coono Ousmane Gueye lan nga daj ci métier comme bànneex. métier bi waaw daj nañ ci bànneex moom parce bëgg-bëgg la woon te mën nañ ko tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax lenn moom gën a su métier yi jour bu ñuy amul défilé grand théâtre te mën naa ne man maa ci gën a nekk ndaw maa ci te ñu ngi ko jox samay patron rek ngeen joxoon modèle bi tamit patron bi woo ma si pet na ma gis nga modèle yi ñu joxe ko yow kes yaa ci apprendre te bu ko sañoon say patron yi duñ la daaxale yàlla dimbale ma ci yàlla dimbale ma ci ma te bokk naa si ñu si dàqale couverture liifaat daanaka sama modèle ci sama sama modèle ci def ku loolu rek bànneex la gelwaar ñu ko doon dégg ci ñaw gelwaar ku gelwaar couture ñu ko doon dégg ci ñaw mu mu mu mu lëmbe woon moom tamit àdduna yow tamit gis nañ ñi ñaw yaa ngi ciy def lu nekk saa su ne damay bëgg nga may ñawal ndax macha allah li ngay sañ sa dafa rafet li ngay ñew dafa rafet dama rom sa atelier diko apc di contane deug yalla man ku bëgg lu baax la mëna defal Ousmane euh ñaw demb ak tay lan mo leen utalee aw ñaw demb ak tay différence amna parce que ñaw demb bo xol mo gënon jafé moment yi dañuy ñew lo xamni ne nu mu gën simple rek gëna a discret ñi tam lan mo waral dembu ñaw dembu gënon jafe bu tay parce que nit ñi àdduna day dox mode day changé di dem ba lu xewoon démb dootu ko gis dañu xool mais même coupe rek moo fi dañu xool lu gën a simple la ñu ko bañ a sonal sa bopp. mais est du bëgg lu yomb ak yéen tamit sa yàqu leen métier bi. non du bëgg lu yomb parce que jamono day changé jamono bu changé rek faaw mu jéem ànd ak moom mais ñëw démb bu ba léegi bu ma ko joxee dama la koy defar comme ni mu iska jangan nggak nga jangan ada naa démb. nggak dugu nga udah ci ñaw daanaka démb weesu na. démb weesu na mais métier bu mokk rek bu bu mokkee rek lépp loo si bëgg a def di ko def. lépp loo ci bëgg a def di ko ci def. bu mokkee boo jaaree yoon ba say patron content si yow loo ci bëgg def ni yen yéen a ekor ñaw ay korotobak yu kenn xamul est ce que du yéen a yàq yi jigéen ci ba est-ce que yéen ngi leen est-ce que yéen ngi wax deug sen ay client ci ñen ñi xam nga modde bi fu toll nii bu jigen bi li bëgg sol rek lay sol mënoo ko soloo lo xamne bëgg ko sol tay bu mo ñëw nga santé mo koroto ko bu boobu laa defal mais côté boobu d'accord ma ak yow d'accord ma ak yow sa soxna mën na ñëw di la ñaw loolu ko neex nga ne ko déedéet duma ko ñaw ndax do ko sol parce que sama soxna la amna ci woon droit wa mais kaneen rakku jambour la soxna jambour la lan motax bu ñëwé ci moom bu ñëwé ci yow bëgg dara mënoo ko ni déedéet li jaaduwul ci sol tax jaaduwul man sama liggéey ba bu ma waxee duma ko ñëw dama koy dem bu demee keneen nangul ko parce que ci boobaa damay tëcc maa tëlee waaw mais su boobaa wax ko ba fi mu yem non mun ko ko wax mais timin doo doo ci dëgg parce que ku yëkkati xaalisam jox la ne lii laa bëgg defal ko lu bëgg boo ko mënoon ngeen mënu ma mais am nga droit ni ko lii moo gën yiw nangam nangam li boo ko solee du la jàpp ndax des fois mën gis yow bi comme par exemple bi ma nga sol ma bëgg ko mu leer na ni bu ma ko solee du ma bu boba di nga ko ñawal. leer na bo du ma la ko ñawal parce que mu na la ci génne. wa léegi xamul modèle bo nek rek ba ko solo jàpp la. wa léegi nek islam bu la jàpp. wa léegi xalaato ni boma ma bàyyee ma dem na ko yóbbu ci sa morom mu ñawal mako ko. xalaat naa loolu. lan tax ku jigen ki xalaataloo loko loolu li nga ko xalaatalee ku jigen ki xalaatal mako lan motax nga nango baye bu mo la miné bu la miné yéen yi mun la ko wa da nga ñew ko xam dakki rek lay sopp nga gis ko mu solo yére bo xam sa masse bi day wàcc ba trois quarts lay bañ comme ça yaay faal bi yaay faal bi boo ko ñoroon ñowal crop top di ko ñor di ko ñor parce que boo ko tëgg yaramam fee foofu foofu da ciy joué bu baax a baax moo tax da ngay obligé defal nit ki lu mu boo ci bëggee génn mooy chef lu bëgg rek ci ay bëgg-bëgg loolu laa ko gisee. de mariage. non du ñëw robe de mariage mais sama papa sa papa da koy ñaw. kon xanaa sa métier dafa bëttul. mais ku nekk ak moom formé ma moom ku nekk ki la formé man nekk fa daanaka lu bëri yu ma xam si téere moom moom koy dolli dama ko gërëm di ko yàlla ñaan yàlla yàlla fa parce que mu may taxaw taxaw boo xam ne mën naa ne si ay doom taxawoo si kenn fan gudd laa koy ñaanal koo fay yëpp ko màgg. waa yàlla na suñu borom def loolu Ousmane ñu ngi ñëwaat ci yow. ñu ngi fi ci sen sen youtube bu mag bi di elvision media wayel suñu mode time mode time ndey sàll ay sap sabara ndey sàll ñu ngi won sank ci euh, robe de mariage bi nga ñew ak sa costume ndey sàll ñu gis ne robe de mariage du jafe la comme tay ku ci melni Ousmane Gueye neena daf ko baye ak papam ndax ñom ndax bim ginaaw bim mu jàngee métier dafa bokkat ak papam daal mu koy ñaanal guddu fan ak wér yàlla ko suñu borom def mu noonu ko raw ndey sàll li nga sol tay abonnel bu fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo tey biñ xolé li création la wala da nga jël modèle jambo pour ñaw mën naa ni du création parce que modèle la dafa xew gis nit ñi diko sol ma sol ko mu nice da nga mënul créer ba tax ngay jël fi jambo diko sol pa ñak mën créer sax daf ma neex rek ma ñaw ko sol ndeysaan ñi nga xamanteni ni tay tey ñoom ñoo paré pour jang métier don ay ndaw don ay jigen lan nga len di wax ci sa métier

am na costume africain costume daal italien euh, yooyu ñoom am ci costume costume foofu dañ koy tënk xam naa après bu ci kanamee incha allah dinañ ko dinañ ko xool léegi ci ci ci ci sa défilé bi nga def ci sa défilé bi ngay def bi ñu lay jox sa diplôme sa centre lan nga fay jël. premier laa ko jëloon concours pass. est-ce que du dañ laa sàccaal. non du sàcc sax amaana yàlla moo namm si ban premier moo tax mu def ko. xalaatoon nga ni mën nga fa jël premier. xalaatoon naa ko parce que may dem gëm-gëm laa àndaloon. te nga nekk faak say morom joxuñu la bitel bi ngay dem ni la diwul. bitel non gëm-gëm la rek man yaakaar naa gëm-gëm moo ko bay. gëm-gëm la mais yow ci ñi jël ci ñi mën naa ni ci ñi ñi nga ñi nga génnandoo est-ce que gënoo ci nekk tout tànk gënoo ci nekk xale. waaw booy xool moom loolu lay noonu noonu la gën see nekk xale mais amaana daal. premier bi loolu ko yàlla bëggee moo tax ma am ko. ki ma booleeg yow dani ma da nga yaru muy Pape Abdi Ndiaye ñu dalaloon ko bii weesu dani da nga yaru euh, yar gi mu gis ci yow est-ce que du moom moo tax mu mu mu mu jox la premier bi est que est que mérite la timide. waaw mën naa du mérite parce moom daf ñu koy wax carrément nee na moom du sàccal kenn bañ na ko ba moom bu corriger moom ak ñeneen tayal ñoo fay nekk ak suñu moniteur yi fa nekk tamit. waaw waaw mais ñoom mu pare def ko neex ci no ci notes yi. ndeysaan li ci kanam noy def ce métier noko bëgg dundé ci kanam. ci kanam inshallah allah bëgg na ci liggéey lu garaaw di ñëw ñëw yu rafet inshallah allah am sama atelier bo wa dama tax mënoo koo door ci jamono ji nga nek wa jamono ji ma nek ma ngi ci xalaat bu baax baax. nga ci xalaat bu baax lu lako téré def. wa xamna moy mo fi amagul ak ak lii ni may soga paré ni il faut ma concentré tuuti pour mën ko def jërëjëf dinañ ñëwaat ci yow iya. waa niñ ko doon waxee rek wax ju neex njarum nopp la xel mu sell moo koy suukar taataan leen ñu xelli leen fii ci Elvision Média fi la mode time di amee Ousmane Gueye Ousmane Gueye euh, sa papaay ñaw robe de mariage yow lan mooy sa spécialité lan nga gën a mën loo nga xamante ni tey bu ñu tëddoon ba guddi yee la ne la Ousmane Gueye lii lañ bëgg nga ñaw ko nga ñaw ko waaw lu ma gën a mën ak li ma gën a bëgg muy broderie haute fille Odifil mooy lan parce que euh, koy wax. Hmm. wax dëgg fa yàlla maa ngi si def lu yéeme. ma hmm. ma dugal xam nga si dara bu ma parce que saabu du fóot bopp parce que xam nga lu mu mën te bu ma ci damay sawar bu baax a baax a baax moo tax tamit moment yi ma nekk maa ngi ci simple maa ngi ci bëgg for former lu bëree bëri maa ngi nekk koo xam ne. mun nañ ne xalifa général ku lu ñëw kat lu nekk lay ñëw bàyyiwul dara ci mbirum ñëw. lu nekkul moom du ko ñaw. lu nekk. mais fii li nekk rek la ñuy xool di ko ñaw di ko. di ko imiter lépp loo xam ne nit da koy sol mu rafet si moom da koy ñaw. waaw mais lan moo tax li nit sologul moom mënu ko mënu ko créer ñaw ko. xam nga kuy dem ba ñëw usu fauteuil kooku bàyyiwul dara. waaw mais li yomb na usu fauteuil yomb na. non par par rapport bëriwul tëyër ko ñu tapissier ñoo koy. non dafa yomb. usu fauteuil dafa yomb. néewul lu yomb xanaa ku dul tëyër sax bu ko xoolee war ko mën a ñaw. ci xel mu sell ku dul tëyër mais boo nekkul professionnel doo ko ñam. lan mooy professionnel noo ko tudd noo noo noo yow noo jàppee professionnel Ousmane Gueye. professionnel lu ma ko jàppee mooy lu nit ki ñëw ba pare amul dara lu ñu ciy corriger. mooy professionnel. moom laa jàppee professionnel. est que fii nit mën na def lu amul sikk. lu amul bariwul mais tout le temps boo répété sa métier loo xam ne lu rafet la ñëpp a ngi apprécier nga jàpp sa bopp professionnel moom jàppewul boppam professionnel mais man jàpp naa ne professionnel la moom. ok. muy sa papa jooju. sama papa jooju. yow est-ce que mën nga uusu fauteuil. non man bëruma li may yëngu ci yooyu. kon sa métier dafa desee bënn. non bënn na bën na sa kaw ci li ñu ma formé mën naa ne yëre ñëw naa ko mais néew loo xam ne dañ ma cee formé man maa ko choisir sama bopp ñëw toog ñëwoo ko sama bopp ba ma ko kon daal Ousmane Gueye sa bopp yow. non du ne daanaan mais bu ko nit waxee si laa koy gën a nangu. gis nga nit ñi waxal nañ la ko. am na ñu ma koy waxal. ah kon Ousmane Gueye ndaanaan la borom barxam ko tiir waaw noonu lañ leen ko doon waxee rek fii dëgg rek a fi am ku gis dëgg-dëgg ca nag dëgg ja dagg la nga dégg dëgg ja ñu gis dëgg ja nga boole dagg ak gàcce kon bañoon koo dëgg gën da koy dëgg mu dagg la nga dégg ko ñu gis ko ñu ngi fii ci seen seen YouTube bu mag bi El Média di fi wéyal moo time Ndeye Sall lan moo doonoon say dernier ak lan ngay ñaax bu tànk ci métier mission bi neexoon na torop métier moom métier bu noble la waaw métier bu neex la tam imaginer nga toog ñawal sa sol métier bu nice nice la mais daal ku bëgg rek nekk tout tànk bëgg ñaw soo ko gëmee concentré si di si ñaw incha allah. mës nga def fay ci ñaw mës nga juum. fay si ñaw waaw ñaw. lan nga mës a juum loo nga xamante ne lu la def ay la comme bonus lu ma def ay ree damay gis manche bu rafet rek ma ñëw suñu sant ñu daggal ma ko ñu <laughs> ma ko daggalee ma ñëw ko ñëw naa ko lu mat 4 jours xaw ma si benn loxo benn loxo kase mais dama doon ñëw di teppi loolu mu jógee sama photo daf maa xaw ma saa suñu boobu <laughs> boo toogaatee nii ba di koy fàttaliku rek bànneex lay doon dangay gis ni métti na mais tey bànneex que boo demee ba toog ñëpp toog ñu jox la si diplôme dangay fàtte yu bëree bëri. kon ku yor diplôme doo loogu loogal doo doodom te lu ñu la laaj sa tontu am xorom tey fii lañ nekk El Vision Médias léppay leer Ndeye Sall lan ngay wax euh, ñi ñuy seetaan. waaw di leen wax ni ñuy ñuy si Média parce que émission bi neex ñoo koy kontaan naa trop continuer sans contrôler ñu ñëw ci Ousmane Gueye Ousmane Gueye looy tëjee say say say wax say kàddu borom barxam couture moom daanaan la. yàlla na ko yàgg nekk amiin bu may tëjee sama émission mooy di rafetlu jotaay bi nii parce que mu naa ne c'est la première fois ngeen di nii parce que faru woon si itam sax moo tax dama lay ñaanal bërëb bi lépp lu ngi fi bëgg rek yàlla continué na ba mu rag kaweeb sa njool si maa ngi sant ñu ma nekkal sama waatile Barham Couture di sant sama papa jooju yàlla guddal fanam nga yàlla gën a wéral loxo bi gën a dëgëral taxawaay ci barke Seydina Muhammad di sant sama yaay tamit bu mu sukkandiku moom it métier bi ba ma ba ma ko choisir deful lu dul jàppale ma ci moom it góorgóorlu bañ a xool dara lu nekk sa kanam métier laa la sant dama nga jàng métier boo ko mënee ñàkkoo dara te métier bi dafa nekk loo xam ne métier bu noble ci kaw boo ko mënee bañ a tricher boo ci nekkee na nga ci nekk rek boo ci paree rek na ci pare di ko ñaanal fan bu gudd wér gu yaram moo jékki-jékki ba yóbbu ko màkk di waat bi si xol bi seet yàlla tàkkal ko xale bu rafet na tegal ko ci wetam <laughs> ko suñu ñu jàmm yàlla gën a wëral loxo ñëpp sama waa bi moom dama dama leen di beral beral nuyu parce que samay gars baax la mais Barada tas na non brader wusu tas parce que jàngoro ji nekk fii mooy ñu xaw a gàllankoor ci lu bari yooyu di ñaan yàlla yàlla bu ñu ko teg yàlla nañ ko yàlla teg si barke Seydina Mohamed taw yéen diw li ci bànneex bu baree topp ku si nekk yaakaaru ko ne lii dinaa moom naa am sama sama bu baax waa ju te mënoon nga ne kii sama copain la ñoo bokk aar bi mais naa ko mu ko invité te mu gën a am loo xam ne nekk mu ëppale ma wala yooyu kon mbokk yi lii la woon lii la woon ci Elvision Média waxoon naa leen ni wax ju neex njarum nopp la xel mu sell moo koy suukar taataan nañ xellil nañ leen euh, ak Elvision Média lépp ay dox day dox ba bu dox day daw Elvision Média ku dul ku dul poussière ku dul poussière doo ko seen El Vision Médias dafa romb lépp di nuyu sama yaay bu baax maa Ami Diop di nuyu suñu waa kër di nuyu waa Jonge famille di nuyu waa complexe ay sab sabar sama njaboot <laughs> maa ngi leen di bu baax Awa Sarr maa ngi koy béggee bu baax sama nitu xol gars yi lii la woon ñi lañ fi amoon ci invité baneen yoon incha allah ci la neen ñu ñëw ci mode time wasalaam